<laughs> mu ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Alaaji bàyyil ma jox la nga nuyoo pajum cosaan jërëjëf ajaratu Betimbo ñu ngi am mbégte di am kontante <laughs> di dalal seex Bara njaay borom def gis ci émission bu mag bi nga xamante ni bi ci biir rubrique bu mag bi nga xam ni tamit moom la ñuy wax pajum cosaan Sénégal di ko xaar di ko déglu ci lépp loo xamante ni bi xew na ci pénc mi mm. waaye it li nga xamante ni bi moo xew ci pajum cosaan Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala fala taalamu nafsun ma ukhfiya jasaan bi ma kaanu ya'malun maa ngi lay fay Alaaji Sanjoogu di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi Cheikh Sohaybu Diop Soxna Seyda ak uh, soxna Biti Mbub ak mbooleem ñi ñuy seetaan ñëpp rek ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général di Mouride di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Muxtar Mbacke di nuyu Soxna May Mbacke bintu Cheikh Sidil Muxtar di nuyu Serigne Djili Serigne Modou Aïssa Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Cheikh Sidil Muxtar di nuyu Moulay Aziz Guèye ak mbooleem daal ñi ñuy seetaan ci biir Sénégal ak ci bitti senegal ñëpp du ñaan yàlla subhaanahu wa taala fu ñu mën a nekk rek suñu borom may leen jàmm ak sutura ak xéewal jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah tey dañuy démarrer actualité bi ci li nga xam ni xew na ci pénc bi gis nga eh, ki nga xam ne moom la ñuy Papito mi doon revue de presse ak nga xam ne moo jiite mafia kàcc kàcc nga gis ni dafa partagé benn publi dafa def benn publication daa dee am loo xamante ni wax na ko daal ne lu naqari rob su neex nañu daal cay boole ay ree ñu ne yooyu mooy li nga xam ne moo tax ñu téye ko ak ki nga xam ne mooy Papito mi nga xam ni. moom it da doon def revue de presse maanaam doon revue de presse ab journal boo xamante ni bii moom moo doon génn ñu daal di koy kepp tamit ci mbir moomu. yow bi nga gisee mbir yi nga xam ni commencé na xew ci biir réew mi nan nga jàngatee yëf yu mel noonu ak li nga xam ne mu ngi commencé xew nii ci biir réew mi daal jàpp gi parce que nit ñaa ngi ciy wax lu ne ah. waaw di ñaawlu. Mhm. jàpp gi. jàpp gi ñoom ñaar ñëpp. Mm. waaye di njëkke loolu rek di ñaawlu maanaam régime mu Macky Sall. Mm. digganteem ak maanaam wàllum tëj. doomu aadama waaw tëj di tëj. Mm. loolu moom jàpp naa ne sax mooy gën a yaatu wax ci ñaar ñooñu ndax gis nga euh, régime mu Macky Sall ci jëmmi boppam. waaw maanaam Macky Sall dafa war a am ab ab ci kaso yi. xool ko buy xam ne foofa luy lekke nekku fa luy naane nekku fa. ab barab la rek boo xam ne ay caabi fa nekk ak i xomb. te kër goo dem caabi xomb nga fa. daanaka kaso moom bu dul gàcce gi la fay yóbbu. waaw maanaam gaal yi ñoo ko gën a garaaw fuuf dugg ci gaal jëm Espagne te booy yi dañuy fay quatre cent mille dugg ci gaal yi. waaw waaw waaw ko dindee ci kaso mu jeex. Mm-hmm. parce que du dara. waaye nag boo xoolee nguuru Macky sàll gàcce gi nekkoon ci nit ñi jël la tëj ci kaso gàcce googu la bëgg lañ dindi ba mu set. moom lañ dindi. boo seetloo jamonoy du Diouf. Mm-hmm. bu dul ñu doon def affaire communiste. waaw ñoom Dansokho ay ñoom euh, euh, ñoom ñoom tuddati ñoom ay Mahmoud Diop ak. Mhm. ay ñoom bàcc li nga xam ne affaire communiste la woon dañu leen doon aaye ñi politique di politique politique clandestin. waaw su dul loolu pour nga gis politicien buñ jàpp. problème la mhm. da nga daan ñi mën ngaa wañ wàññi téeméeri personnalité. Mhm. ci jamonoy Abdou Diouf ak Ablaye Wade. waaw ñaar ñoo ciy dugg kaso. personnalité yëpp te seen dugg kaso googu. bu dul ci affaire communiste rek maanaam gàcce lay doon gu ñuy tudd. léegi nag boo xoolee ci nguurug Macky sàll ak léegi da ngay wàññi téeméeri personnalité ñaar ñoo ci dul dugg kaso. 98 hmm. yëpp dañuy dugg kaso ñaar ñi duggut kaso. fu ñu hmm. waxee ñu xasal leen ko tàppet nga doo duggoo kaso. bu njëkk nguurug Abdou Diouf dugg kaso. waaw crime la woon ak gàcca hmm. téeméer boo jël ñaara ci dugg ci kaso bi te dënga leen fa yóbbu. nguurug Macky sàll nag. téeméeri personnalité yu politique yoo gis. Mhm. ñaare ci rëcc ci kaso bi te rab tàppate leen ko yóbbee. Mhm. boo xoolee première partie Macky Sall muy 2012 ba 2019. waaw pour nga bokk PDS te duggoo ci kaso bi. waaw mënta woon a nekk. Mhm. maam Adama Sall maam maam euh, euh, kii Sall. maître Amadou Sall maître Amadou Sall. Babacar Gueye. waaw Karim dégg nga maam euh, ba Senghor. Mhm. Euh, moom daal parti ba. waaw Ngom parti ba ñëpp. kaw ba suuf. Mhm. ñëpp dugg ca kaso ba. Mhm. pour nga nekk maanaam ba ci. ay ñoom Amina Sakho Amina Ngira nag maanaam koo jël ci PDS rek ñam na ci kaso bi. waaw doon teg bëccëg la. ba ci Ayda Njong ba ci Ayda Njong ak ñëpp mm-hmm. ñëpp ñëpp pour nga bokk PDS te duggoo ci kaso bi c'est problème. problème la deuxième partem PDS fer na léegi Pastef la jël. Mm-hmm. pour nga bokk Pastef te nekkoo ci kaso bi problème la. Mm-hmm. loolu nag day mel ne kon nit ñi amuñu problème ñii tëje ñoo am problème. ñii tëje waaw. te tëjug Macky Sall it Mm-hmm. ni ma koy waxee bu fekkee booy yi dem nañ ba nand ne maanaam daa am lu muy jariñ waaw dañuy fay quatre cent mille pour ñu tëj leen parce que dafa mel ne moom tëjëm yi wàññeetul dara wàññeetul dara boo xoolee élection maire yi jàll waaw <coughs> Sonko ñam na kaso nekk maire waaw Khadija Mayakoor ñam kaso mm-hmm. nekk maire mm-hmm. Biram Souley ñam kaso nekk maire Abbas Fall ñam kaso nekk maire man nga koo topp noonu dégg nga ñu bari bi ñu leen tëjee ci kaso bi bi ñu génnee dañoo am ndombal tànk nekk maire. waaw élection législative yi jàll. Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara nga ñamal ko. mu génn nekk député. nga jàpp Guy Marius Sagna mu génn nekk député. Mhm. nga jàpp Cheikh Abdou Bara Dolly. Mhm. mu génn nekk député. Mhm. nga jàpp maam jaara Fam mu maanaam noonu. ba mu daj. dafa mel na moom day fekk nit ñi di politique. mu ñëw jàpp la defal la promotion. parce que nit boo ko jàppee. te gàcce nekku ci rek. maanaam ndam lay doon. parce que kaso bu ñu koy daw gàcce ga doo nga tax ñu koy wax hmm. waaye jàpp gor soo xam ne deful dara nga jàpp ko hmm. tëj ko hmm. loolu mooy problème te nag yàgg nañoo tëjaate loolu moom dama koy wax Sénégal suñ maam yeeg suñ yaay yi ñu seetaan ñu yëg ne réew mi 1960 bañ fi bañ fi tàmbalee tëjeeg tey waaw bañ tabaxee kaso ca colonialiste yaag tey waaw ñi ngi doog a tëj nit parce que da nga doon reetaan loo nit ñi ñu ngi doog a tëj nit parce que da nga doon reetaan léegi réew mi yegsi na foofu <laughs> papito na ñëpp na Sénégal gépp xam ne dañ koo tëj parce que da nga doon reetaan loo waate day waaw yow da nga doon reetaan loo ñu tëj la waaw ma euh, kii Ousmane Diagne dañ koo tëj parce que yow yaa ree ñu tëj la waaw reetaan loo ak ree nag bu ñu demee ba koy tere ci réew mi kon xam naa ba yeboo ku ne wut foo jooyee hmm. noonu la dem foo waaw ndax reetaan ak ree ku ree ñu tëj la ku ah, reetaan loo ñu tëj la waaw jooy lañ bëgg nit def ko loolu lañ leen jàppee léegi saf xorom danger la fi <coughs> waaw saf xorom rek danger la fi bay boo ñoom ñoom démbi faal ak ñoom ngureeg ñoom ñëpp moom pare mhm. ak ñoom saneex parce que fekkee réew mi ku reetaan am nga problème te loolu nag dëgg-dëgg baat bu xoromu la mais loolu moo am mhm. <coughs> loolu moo am papito karaa waaw bu ñu la waxoon ni ñu ko jàppee nag ngay doog a ree nag yow ba sonn nan lañ ko jàppee papito kara moom mhm. Pape Ibrahima géey la tudd baayam Baye Moussa Gueye taalib yëpp sëñ Cheikh ma réew sama baay man mm. mooy ba mooy sëriñam mooy sëriñam papito mii pap Ibrahima Gueye mii sama mag ñu mm. ñuy wax euh, sëñ Mbacke ma réew mu Ndiaye mu sëñ Cheikh ma réew mu mooy sëriñam mm. ñoom Daouda Gueye ak ñoom ñëpp mm-hmm. famille boobu yëpp suñu famille ñooy ñooy seen sëriñ muy waa kër sëñ Daw Rasan pap papito mm-hmm. dañ koy jàpp dañoom dañ ko def naan dañ koy teg diil ne ko léegi dañoo am ay marchandises suñ bëgg nga invité nga ñëw publicité ñu ko. léegi fekk ñu ci restaurant. Mm-hmm. mu dem di leen fa fekk ji ñu jàpp ko yóbbu. Mm. waaw mel ne maanaam kuy suyee film daal xam naa dañoo namm film laa defee. <laughs> ñu demee yóbbu ko li ci gën a xoromu mooy xëy suba indi àddunay police fa mu dëkkoon. waaw ah. tam benn néeg la yor moom magam ju góor a ko bokk. Ah. ab ordinateur sax amu ko. Mm. ñu ñëw indi ay ngandi police nekk ca néeg ba su yulli yére yi. tasaare téere yi lu ne ñu dugg ca di xool gisuñu mhm. dara mhm. moom lim daan liggéeyee ko su néew ci téléphone la ko daan waxe waaw jeex na mhm. ñu ñëw këlfe fépp léegi gis nañ ne deful dara lan lañ koy jàppe di ko fa téye dara ma nga ñu téye jotewut ak ñoom dara Pape ñu euh, tuddati Ousmane Diagne tamit waaw kasaalika procureur dem na ba léegi wër nañ wër wër wër wër amuñu luñ ko toppee ñu ne ko léegi da nga doon yaa publier yi boole ci ree te booy yi liñ def waaw kum neex na nga ñaawlu ko waaw kum neex nga rafet lu ko. mais yoon moom yoon bu dee yoon la ñuy wax ñaawluwu ko. Hmm. ndax booy bu dee publier. bind ñu l'observateur ci bee ci pee lañ ko bind. waaw loolu dëkk tubaab yi ña ngi koy def. ñu xam fañ koy defee. Hmm. te kenn du ko def kenn du déli. Hmm. loolu amul benn déli bu am fii. ñiy def déli kay jàpp ñu leen. mooy journal L'Obs boobu ñu ñu trafiqué. waaw ak Le Quotidien bi ñuy trafiqué. waaw bis bu nekk ñu bind loo xam ne dara du ci dëgg. te kenn topp leen ko. le quotidien boobu sosal na fi ba sosal xalifa général de Mouride. Ah sosal na fi ba sosal fi xalifa général de Tidiane. sosal na fi Souleymane Deliko ñu tëj ko. moom moom le quotidien ma jambal Diagne moom ko. ma jambal pour nga tijji journalam fekk ci dëgg. waaw loolooy problème bi te mi ngi nii doxi soxlaam. Hmm. te booy même bu fekkente ne dañ koo traqué. waaw ñii dañ ciy fo. ñii nekk ci dëgg ba noppee nag ñoom. Hmm. di jaay duñ fexe ba duñ wax benn sénégalais dëgg loolu kay moo gën a garaaw lépp. te kenn waxu leen dara. Hmm. kon donc moom loolu daal laa am lu ma ciy wax. mooy Sénégal nañ yëg ne. tëj mm-hmm. nañ fi nit. parce que mm-hmm. da doon reetaan. da nga doon reetaan tëj nañ fi nit. Mm-hmm. parce que yaa wax lu tax nit ñi reetaan. d'accord loolu moo tax ñu tëj Papito. moo tax ñu tëj Pape Ousmane Diagne. na ko Sénégal gépp xamandoo rek. mu jeex waaw. Cheikh Bara macha allah li nga jàngat foofu am na solo mais Cheikh Bara bii nag moom xam naa ni euh, question bi yow dina la yitteel sax parce que euh, dafay fekk si ci sa métier. muy métier am sëriñ. parce que Pape Alé dafa mel ni dafa yëkkati ab kàddu mel ni am na daal état bi am na ab sëriñ boo xamante ni bii. moom lay war a fay xaalis ngir mu fexe ba dëkk bi du yëngu lépp na selaw man na xaw moon ndekete gars yi aaye nañ noonu bu ko defee daal ngir ñu mën a jàpp Sonko te buñ ko jàppee Sénégal gi yëpp ne nemm mel ni jàpp ñu Sonko maanaam ñu yeew Sénégalais yi ba ñu ne ngodd coow du yëpp dara du yëngu léegi gars yi ci sëriñ ci lañ ko bëgg a jaaree loolu est-ce que nee sëriñ bi la ñuy xaar fi mu toll ndig sëriñ baa nga ci liggéey bu rëy fi mu toll ni Cheikh Bara loolu noo ko jàngatee. <laughs> waaw loolu <laughs> loolu li ma ciy njëkk a wax mooy. Mm-hmm. maanaam lu am la lu am. lu am la. maanaam du ma ne nag li Pape Alé wax lu am la. Uh-huh. waaye am loo bëgg a def. jël sëriñ pour mu defal la fay wax mhm. loolu am na fay wax waaw nga xam ne mhm. day tënk nit ñi ba kenn du wax dara maanaam mhm. coow li du bari lépp na selaw élection mois de euh, non mois de mars effectivement Sonko ya man xam naa sëriñ boo xam ne ñu ngi ko dalaloon fii ci cité Xaadim waaw Macky Sall ko fi indi gis naa ko xama xarita dëkk ca kaw ga daanaa fa dem ba ca moom waaw bi ñëwee mu ne waaw coow li ni ngeen defee ne noonu la demee du demee noonu du demee noonu waaw dinañ ci def lo ma ne ko ma ne ko bii de du baax moom buñ jàppee Sonko mën naa mën ko yow de doo bëgg da nga dugg sa oto doo ci dugg Macky Sall dana bëgg añi du añi <laughs> te loolu moom amul lu koy dindi mhm. loolu lu am la loolu moom man man laa wax man waaw maa xam koo xam ne Macky Sall moo ko indi fii ah pour mu ñaanoon ci affaire mois de mars yi hmm. mu ngi daloon si te mu déggee xam na li may wax mhm. mais nag euh, bu dee jëmmi nag lii Pape wax kon du xam bee ba noppi di weddi bii mhm. du ko weddi waaye li am mooy Euh, man yëguma ko woon sax damaa dégg jékki-jékki rek ñuy di dagg di ma ko nit ñi di ma woo mel ne événement moo am. waaw ku ma woone waaw li Pape Alé wax ci Sonko ma ne man gisaguma ko ñii ñi yónnee ma ko lu ëpp téeméer yoon yónnee nañ ma ko xanaa. yónnee nañ la waaw léegi nag loolu euh, moom man sax tey sawaruma. damaa hmm. xaw a tawat tuuti. <coughs> waaye ginnaaw yàlla looloo tax mënu ma woon a jéggi tey ji bañ a ñëw. ndax wax ndax xam naa ne wax ci Sonko. Mhm. mën naa nekk lu woyof nii ci Pape Alé rek Sonko dinañ ko jàpp. Mhm. daal di dem. mais gis nga loolu lu diis la ci doomu aadama yi. Ah waaw lu diis a diis la. lu Sonko Sonko moom ak nit ñi. dafa dem ba jéggi dimension ay politique ak yii dafa am feneen fu ko nit ñi di xool am fu nit ñi nekk ak moom. Mhm. te loolu boo nekkul ci biir Sénégalais yi dëgg-dëgg doo ko mën a xam. gis nga lii nii Pape Alé wax maanaam ni fi mu yóbbu nit ñi. Pape sa xamu ko. bu ko xamoon dina ko wax Sonko kese wala wax ko yenn ñeneen bañ ko wax ci kaw. waaw gis nga man euh, dama lay li benn affaire gis nga euh, pa nu mu tuddati euh, Thierno Alsane Sall bu Thiès. Thierno Alsane mii di politique. waaw magam ju jigéen. Mhm. jóge na cees paas ñëw ba sama kër fii aslem mhm. bi ñëwee toog ne ma man fajuwuma ñaan luwuma mhm. dafa am lu ma bëgg nga wax ma ko rek ma ne ko lan la mu ne ma dafa am benn sëriñ wax na ma sax sëriñ bi ku mag la moo ko wax ne ko Ousmane Sonko dinañ ko tëj kaso te du mës a nekk président mu ne depuis mu wax ma ko ba léegi nag dama am traumatisme du ma lekk. du ma nelaw. te xam naa ne buñ jekkee jekkee rek ñu ne xëy na jàpp nañ Sonko man dinaa dee. Ah. Magi Thierno alsaan moo ma ko wax de. Magi Thierno Alassane wallaay Lasim. moo ma ko wax mu ne ma. su ma ko jàppee rek man xam naa ne damay dee. léegi nag yow rek laa ci gëm. dama bëgg nga wax ma carrément bu dee dañ koy jàpp. Mhm. ma pare sama bopp psychologiquement. waaw ma xam ne danañ ko jàpp ma man cee pare. Mhm. su fekkee duñ ko jàpp nga wax ma. Mhm. gis nga keroog li ma ko ci doon wax damaa yóotu kaamin kaamin waaw ci sama loxo pour rassurer ko pour li ma koy wax mu gëm ko waaw ma wax ko la ma koy wax mhm. mu gëm ko xam nga kooku waaw dèjà boo doon xool ci wàllu wàllu nit ak nit ñi rek da naan rakkam lay faral te mhm. rakkam ak Sonko sax man ngaa wax ne ñoom ñaar neexoowuñ waaw mais xoolal fi mu teg Sonko am na beneen maire bu ñuy wax euh, maire Thiam maire maire mba maire mbub bu si FM Tata Ndeye Mbuub mbub wala Mbuub bu si FM waaw te dafay jooy moom jooy xaj uh-huh. ci est-ce que Sonko dañ koy def nangam bi surtout mars bi jàll nii bi ñu ko biñ nee bu génnee ñu jàpp ko. moom mu ne hmm. day génn. waaw ay waay wax leen ci gis nga day ma ji ma man su ma baalut Sonko mu dem sawara <laughs> ndax li may wan saa yu ma hmm. tijjee rajo bi bu ko nit saagaa wala nit wax ko waxalu ko naqari daanaka dama koy jooyee jooy bay bëgg a dee. ndeysaan. Hmm. ak ñu dul jeex. waaw. sama maire bi sant Fall borom simis bi dëkk <laughs> xam naa dina reewa sonn du ma ko tudd nag maire bi sama sama maire bi dëkk mm. Mariste yaa aan mm. aan Mariste maa ngi lay nuyu bu baax <laughs> ñooñu euh, maanaam Sénégal ci boppam ñoo dem ba toll ak Sonko foo xam ne mm-hmm. maanaam bu ñu déggee musiba jëm si ci moom ak lu mu tuuti tuuti ñoom danañ dana leen yegg foo xam ne mm-hmm. loolu di ko moytandi ko moo gën parce que mm-hmm. nit ñi léegi même ñi politique APR waaw dañuy jàpp ne Sonko benn politicien la boo xam ne bu la neexee nga ñëw sosal ko wax ko dara nii mais am na ñoo xam ne fi ne buñ la déggee ngay wax Sonko dara maanaam fi fi ñuy yeggalee wax ji ñoom ci xeetu mbañ gi ñu lay bañ. même bu ngeen bokkoon. Mm-hmm. maanaam boo xamoon ni ni la nit ñi bañee boo waxee Sonko maanaam après yow doo ko ko waxati dara. Mm-hmm. man xam naa koo xam ne dama ko doon conseillé nee na mu ne day politique ma ko nang ma dimbali su dee bëgg nga sa politique sori. waaw fexeel ba bul bul bul joteeg Sonko dara donte mm-hmm. APR nga nekk di liggéey. dégg nga kooku sama mbokk la muy politique ca Touba. waaw te loolu gis nga Sonko day yeexalu yoon. saa yo waaw yow mm. buñ la joxee antenne rajo ne la la waxal ndax nit ñi bëgg la. soo xas soo dalee ci kaw Sonko rek yow maanaam xaaju nit ñi mu weddi nañ la bala ngaa wax li nga doon bëgg a wax. Mm. loolu moo mooy am jafe bi moo tax daal xam naa ne. Mm. Mm-hmm. Euh, li wax nit ñi rek Sonko moom bu fekkonte ne. waaw xaatim. baa liggéey moo koy rey. Mm-hmm. heure bii moom ñu ngi koy defalee li xalaas. Mm-hmm. loolu moom na leer waxuma la moom waaye parteem sax yaakaar naa nit du fa des. <laughs> waaw waaye nag daa nekk nit koo xam ne. Mhm. yii nii ñu ngi koy def de. waaye dañ cee mënut dara. ñu ngi koy def waaye mënu ci dara dara lañ ko mënulut. Mhm. te Sonko moom nag xeexub saahir moo gën a sophistiqué fuuf mooy ku toll ne président de la république. waaw ku toll ne procureur. Mhm. ku toll ne général. ku toll ne ministre de kenn ku nekk maanaam boo xëyee di xalaat ba fa sa xalaat mën a yem lu lay yàqal te mënuñu laa yàqal dara. liñ gën a bëgg li gën a ndaw mooy nit ñi weddi la tax mënuñu laa tax ba nit ñi weddi la. waaw loolu ku ko mënut niñ leen niñ ko tëlee ci baati ci saahir nii nga di ko gis. waaw noonu lañ ko tëlee ci baatin. maa la ko wax. bu leen neexee comme neex fasal comme neex xàncal comme neex reenal doo jàpp tous. sëriñ yi kon dama lay wax benn affaire sëriñ yi ñoo fi gën a bëggu encaissé nag. waaw billaahi ku fi encaissé sonko naan danga koy jéem a def dara. boo fa nga toog di ko wér wala nga koy jéem a fas boo boo moytu foofu ngay tàkkee. barke yàlla ku ku ci moytuwul loolu. wallaay boo moytuwul suuf dana la féete kaw. nga ne ku ci moytuwul. <laughs> ak <laughs> ak keeset di kii. xam nga jamono yi Ablaye Wade. waaw. am na politicien boo xam ne daa jël ñaari sëriñ dugal leen xa duggalee leen xal waaw ñaari sëriñ yëpp bokkuñu fu ñu duggee bokkuñu dëkk bu ñu duggee ñaari ñëpp a dee ci semaine bi. <laughs> te loolu siiwoon na. boobu kan lañ doon kii dugal. Ablaye Wade Ablaye Wade lañ dugal xalwa. Ah, nag soo ko. Ablaye Wade ku koy dugal xalwa yaa ngi ci. <coughs> <coughs> non Ablaye Wade la ña barke Sëñ Tuubaa non ab opposant moo leen fayoon ñi jéem a song Ablaye Wade ñi song Ablaye Wade 2007 ñaar ñëpp dañoo deewandoo <laughs> ci même semaine dégg nga waaw Ablaye Wade nag dama leen di wax Sonko ko gën a beleene fuuf foofu ah? nag laa yem ak ñoom Sonko ko gën a beleene non moo ko gën a beleene téeméeri junni yoon kuy ñaan daal na ñaan ci yàlla nit ñi yaakaar gi ñu am ci moom mu bañ a tas yàlla bañ koo tas mhm. waaye amaa nag maanaam yàlla di defar mhm. ñàkk fayda ak doomu aadama taxaw ci wet gi naan ko yàqal li ngay defar waaw yàlla ak seegut foofu yàlla yegg seegut foofu déedéet ah macha allah te léeg-léeg mbir yi day am mbir yoo xam ne ci loxo yàlla la nekk uh-huh. moo tax dañ koy bàyyee yàlla rek hmm. kon daal yow jàpp nga ni daal yow sëriñ yooyu nga xam ne bi moom la ñuy ruumandaat Pape Alé di ko wax kon sëriñ boobu daal du réussir am na de hmm. weddiwuma ko nag xawma ci dara nag sama digganteeg yàlla xawma ba xam lu am la waaye gëm naa ko ndax man xam naa ne dañuy indi ay sëriñ di ci liggéeylu hmm. waaye dama ne ko ma dama ne maanaam comme ça mu jël ko di ci jéem a def dara moom ba xam hmm. di ci xaar résultat hmm. du gis ëf du gis ëf waaw d'accord waaw Cheikh Bara macha bi nga xamante ni bi sëriñ boobu xam naa boo defu ndànk teg na kurus daal di génn ci mbir mi xam naa mën na encaissé nag ba noppi naa leen dana baax na encaissé rek tëdd kay yow <laughs> encaissé te tëdd. waaw te Sonko dara baax. Sonko moom ku la ci ñaanloo bu ñaan gi jàppati du la wax dara. Euh. waaw ndax day xam ne bu doon ay pexe koy lijjanti bal du la woo. waaw. waaw Macky Sall ba doon pexe pexe lijjanti Sonko mhm. du woo benn sëriñ ndax moo leen ëppi pexe ëpp leen moyen d'accord waaw <laughs> jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara léegi nag dañuy dem nag ci li nga xam ne mooy ñetti doomu pendanaar yi nga xam ne bi macha allah Youssou Ndour ba mu ko woyee <coughs> ñetti doomu pendanaar yi ndekete yoo bés dana ñëw ñetti doomu pendanaar yooyu daa dee taxaw hmm. ki nga xam ne mooy Pape Diop Thierno Alassane Sall ak ki nga xamante ni kii moom moo ñuy wax Pape Djibril ñi sax ñi ngi naan hmm. ñaari Pape yi ma doon way tey jii ma ñetteel leen waaye kenn ka sant tuddut Pape waaye ma nga tudd Thierno Alassane Sall naka nga gisee yëf yi parce que fi mu toll nii tey jii Pape doon na war a wax sax fi mu toll nii nit ñi naan nii la ñuy demee yëf yi nii lay tëddee lii nii lay lii noo jàngatee nag fi mu toll nii ñetti doomu Penda Naar yooyu ak situation politique bi fi nga xam ne fi la toll. waaw léegi nag euh, foofu. da may hmm. may rek ñu tàmbalee ko ca la ko waral. la ko waral. muy élection yi. ak hmm. séddalem député ya. waaw ginnaaw état bi ba mu wóoree ne. maanaam rombut soixante quinze député jëm soixante dix huit loolu moom moo wér. Mhm. Ousmane Sonko nag moo doon wax daal ne gars yi nee nañ dañ ne dañ leen a sos ñu am quatre vingt. ñu ah, comme Sonko moom moo demoon Facebook bi de lu ci na. Mhm. ñu ne comme la yor moom Facebook am sax décret la léegi. Mhm. bu nee liste bi yàqu rek après conseil constitutionnel maanaam waaw Sonko nee na bi yàqu kon yàqu <laughs> Sonko moo ñëw daat ne. waaw ah Benno Bokk Yaakaar ñoom nee quatre vingt deux députés lañ soxla rek ñu ne eh Sonko nee na quatre-vingt-deux hmm. te ñoom ñeme wuñu a tudd quatre-vingt-deux de hmm. ci Sonko lañ ko dégg rek gaaw profité ci ñëw ba ci li hmm. Sonko wax ñu teg ko fa waaw léegi nag loolu moo am kon dem dañoo sàcc élection yi loolu leer na nañ bulletin yi jógee Ranérou maatam ak euh, Podor benn baaxu ci diggante bu gàtt ñoom Déthié Fall dem nañ fa vérifier ko gis ci trente et PV yoo xam ne amul signature maanaam moo kayitu journal la yam ñu boole ko ci kayit yi. Mm-hmm. ci diggante bu gàtt. Mm-hmm. booba nag gars yi nanguwuñ ñu fata ko nanguwuñ ñu def ko dara ba ñu xëyaatee war a indi IG justice mu constaté ko. Mm-hmm. ñu ne génn leen kayit yi ñu xool ñu ne ñoo lànk du ngeen ko xool. du ngeen ko xool léegi nag noonu la demee. ñu siisu ñoom nag démb jël nañ ñaari décision yu baax. muy ban ak ban mooy waaye dil conseil constitutionnel. ne ñun demuñu ci yéen laaju ñu leen seen xalaat. loolu da leen di waaye dil. dégg nga bi ci des mooy haut conseil bii. waaw nga xam ne lekk kaayu xaalis la dañ ko créé woon uniquement pour waa PS dajale leen fa ñu lekk xaalis. Mhm. ñu boycotté ko. Mhm. te ni ma déggee waa manque waa wàllu wax ak waa yeewi. Mhm. ragal naa ne ñoom am na fu ñu teg seen tànk ci ne ñooy yor majorité bi. nuru na ko. ci ah, niñ communiqué waaw communiqué wuñ ci ku yor ku lu yor communiqué majorité. dañoo communiqué ci. mel na ne ñoom dañoo am ne am nañ majorité ba pare loolu la gën a nuru Macky Sall nag maanaam gars yi dugal nañ ko ci roppitu sàmbalaw bi moom ah. mooy bis bu haut bi moom lenn rek moo mën a mooy mu résoudre ko mais hmm. bis bu ko yóbboo waaw euh, ensemble gars yi lànk bañ a wate bitse bi foofu lay doxee waye di ba faw kon moom moom moom <laughs> rapitu sàmbalaw bi la dugg dèjà cohabitation bi seize milliards yi nga xam ne mooy seen bitse rek mu nar a récupérer rek loolu jar na ko hmm. jaroon nañu def cohabitation hmm. léegi nag xam naa li gars yi gën a xaar mooy bis bu nekk nag nga gis ñu naan yeewi wàllu est-ce que danañ ànd waaye bennoo bokk yaakaar ndax danañ ànd ak nu ñuy def ba ànd moom la waroon a gën a laaj te analyste yëpp ci yeewi wàllu lañ jëm mhm. yeewi wàllu ni mu demee mooy yàlla moo ci dugal loxoom ah. parce que bu fekkonte ne yeewi daa ñëw am majorité am waaw kon opposant yi nga xam ne dañoo nekk ci roq bi ñu naan leen da ngeen di jàppale Macky ñu naan déedéet ñooñu duñ feeñ waaw bu fekkonte ne Macky daa ñëw am majorité tamit du feeñ mais waaw bu déconné rek maanaam mm-hmm. affaire bi day yàqu. day yàqu kon donc ñoom. Mm-hmm. léegi day leer comme midi. Uh-huh. benn mooy ñu ñëw dugg ci opposition bi wane ne ñoom ay opposant lañ. Mm-hmm. ñaar ñu bañ dugg mooy ñu jël waxu ko def ko def ko loo xamante ne maanaam day mel ne alxuraan moom léegi. waaw mooy lu leen lu Sonko waxati nit ñi moom kenn dootu ko weddi ndax ba ko Sonko koy wax ñoom dañ ko doon weddi te léegi dëgg taxaw dëggal sa bopp jot na. waaw ñoom ñett nag kenn ku ci nekk. <coughs> am nga critères yoo xam ne war naa mën a tax nga ñëw bokk ci opposition bi. Mm. Pape Diop. Pape Diop waaw. gaa yu bari ne nañ day dem. man gëm naa ne moom laa gën a jëm ne du dem. Pape Diop waaw. Hmm. su su dul ñu teg ko péréction nañ ko médaille de. péréction marab. Hmm. bu du bu dul loolu. Hmm. Pape Diop du dem ci Macky Sall. man nag man maa la ko wax. xam nga lu tax non Pape Diop ak Macky Sall da dangay xool. pap Diop bi Ablaye Wade daanoo. moo njëkk taxaw contre Ablaye Wade ba Ablaye Wade naan ko da ngay da ngay rey puune tuddoo Pape Diop Moustapha nga tudd <laughs> fàtte ngeen ko. te 2017. <laughs> Abdoulaye Wade 2017 Pape Diop 2017 Pape Diop ak Abdoulaye Wade ñoo mujj ànd élection législative. élection élection législative 2017. ba ci la Abdou Bara Dolly faloo ci la député Ndangu Seck faloo. ca Italie donc kon ñoo àndoon. local yi. Mm-hmm. Pape Diop ñëw bëgg ànd ak PDS ne leen man ngeen def candidat Dakar ñu bañ ne ko Doudou Wade lañ koy def. mu bàyyi demal boppam. waaw législatif ñëw mu demal boppam. waaw 2019 ñëw mu dem bokk Idrissa Idi Idi deux mille Idi 2019. Mm-hmm. kon donc Pape Diop mooy seul politicien boo xam ne jotewut ak Macky Sall dara nag. Mm-hmm. mais diiraan nguurug Macky Sall mosuñoo laalante. maanaam mosut a dugg ci nguurug Macky. waaw élection mosut am tamit mu jàppale Macky Sall. waaw te boo xoolee bi ñu jàppee xalifa Sall. opposé wu na ndax nee na li Khalifa Sall def mën mii def naa ko. Mhm, loolu manière opposant la. te boo xoolee kon musta ànd ak Macky te manière opposant la te Pape Diop ko moom boppam la. Mhm. man gëm naa ne bu doon dem ci Macky Sall moom kenn waxatu ko. d'accord dafa moom boppam. parce que mhm. doomu aadama tamit ba nga yàggee ci say loxo. da moom sa bopp. da ngay moom sa bopp voilà te weese na fu ñu koy jëndee. te wóor na ko wóoral yàlla tamit ànd ak Macky Sall moom la fay nekk ci ay problème maanaam jëru ko. loolu Pape Diop du du gone ci politique te boo xoolee ay Moussa Diakhaté mhm. ay Aliou Sow yu mu àndal ay ah. ay ay euh, ay radical lañ donte dañoo joteeg waa yeewi mhm. mais opposant yu metti lañ ci kaw Macky Sall kon donc man gëm naa ne Pape Diop moom mhm. du dem ci Macky saal beneen Pape voilà <coughs> Pape Thierno Alsane te ngaa ñëw ci beneen Pape bi Pape Djibril bi muy Pape ak Pape kon Pape Djibril moom waaw man Pape Djibril dama lay njëkk dafa am lu muy njëkk wax nag ba pare muy lan mooy man Pape Djibril hmm. aw ma lu may contre ci moom. Ah. te bu amee lu ñuy gëm ci moom am na lu ma gëm ci moom lu bari. Mm-hmm. parce que mosuma ko wax ci tele mais man Pape Djibril yaayam sama benn bakkan la. yaay Pape Djibril Codé Fall. macha allah sama xaritu benn bakkan la maamam sama xarita. Mm-hmm. dañuy ñëw ba sama kër. bu ne. waaw ñetti at ci gannaaw. yaayam ak baayam toog nañ nii duñ ko fàtte ma ne leen yéen seen doom ma ne mm-hmm. yaa papaam am lu muy wax ma ne ko yow jur nga doom joo xam ne mën naa jiite réew mi. bu fonkee boppam. voilà booba Pape Djibril xalaatagut politique. d'accord kon bu demee ba tollu fii di politique. Mhm. man awma lu man ku la ku la ku lay natt ci réew mi. kooku paasal na la ndombal tànk député. dëgg la mais dafa am lu mu wax loo xam ne dafa mat a bàyyi xel. muy laan mooy nee na déwuma ci Macky Sall. waaw loolu leer na. Mhm. déwuma ci yeew yi déwuma ci benn waajuma ko. Mhm. kon leer na demut. waa daa am lu mu wax leneen loo xam ne façon nga dem la. Ah. mooy troisième voie bi ma leen waxoon moom laay incarné ca laa ne. waaw loola nag moo dul wax waxi dara Pape Djibril. ay troisième voie waaw. Mm. Pape Djibril ay troisième voie yooyu muy wax loolu ñi ko koy gëmloo ñoo bëgg yàq politique am. Mm. Pape Djibril Thierno Alsana ko mag. Mm-hmm. moo ko ëpp xam-xam ëpp ko xaalis. waaw Pape Diop ko mag ëpp ko xam-xam ëpp ko xaalis. Mm-hmm. mais bu buñ tegoon réew mi nee ne leen yéen ñett njëkkante leen ko. Pape Djibril dina jël réew mi fukki yoon te ñii duñ ko jël. Mm-hmm. politique bi ni mu bindoo léegi. ak nit ñi ni ñuy xalaate ak réseaux yi. ak ndaw ñi. Pape Djibril bu weesoo Sonko ñi ko ëppaat sens ci jiite Sénégal bëriwul. Hmm. waaye na xam ni muy politique xam fi muy tegub tànkam hmm. yii muy wax nii di jéem a théorie nit ñi mënta dem hmm. troisième troisième troisième troisième kii moo amut troisième fois moo amut mi ngi mel ne daa fekk Pape Djibril daa fekk nit ñi basket ñii di dugal ci camp yi ñii di dugal ci camp yi moom ah. mu ne man troisième pañe lay def troisième troisième panier amu fi troisième panier mooy waaw am ah, loolu loolu benn da sonal arbitre bi yàq basket bi yàq sonal ñiy seetaan <laughs> te fi ngay dugal amul njariñ Pape Djibril da dugal ci panier gauche bi baa nga dugal panier droite ay panier troisième voie boobu ngay jéem a wax amu fi amu dem ci makki waaw boo demee ci makki di nga tiiree li nga ci war a tiire loo ci mën a jële di ci tiire li nga ci war a tiiree mm. soo ñëwee ci opposition bi. jox mhm. fexe bañ am majorité assemblée nationale. Mhm. li nga ci war a jëlee di nga ko ci jëlee li nga ci war a tiire di ko ci war a tiire. mais diggante bi boo fi taxawee jàpp ne foofooy yoon wi. Mhm. basket bu am troisième euh, panier amut. football bu am troisième camp amut. àdduna bi sax coowul RCBT yi ngay dégg yëpp ñi bëgg a def troisième voie ko andi ndax adduna bi daa taxaw góor ne man jigéen la jigéen ne man góor la am ñu ne man déedéet troisième voie laay def gars yi ne ko du ci dal. moo indi problème bi Pape Djibril bu bañee indi problème ci fii na bañee nekk fi ay man maa wax troisième voie bi ma doon incarné d'accord na ko teg ci suuf mhm. réew mii kenn ëpp ko fi mérite am na xam-xam mhm. am na juddu mhm. am na engagement mais gis nga man lu leer laa lay wax borom costume yooyu takk seen weer yi di jéem a coow di la wooy quatre heures du matin naan la lu ma xamut ak lu ma xam dañ lay nax ku ci amoon xam-xam fal boppam waaw li nekk ci yow ba nit ñi def la député bu nekkoon ci ñoom ñooy nekk député doo nekk dara ñëwal ci opposition bi nga opposé wu d'accord jël sa sens kenn moomut réew mi dégg nga Thierno Alsane Thierno Alsane parce que temps <coughs> waaw Thierno Thierno Alsane moom benn affaire rek moo ko yàq mooy wóor na ma wóoral yàlla moom waaw lu dem ci Macky Sall ah mën naa koo waat lu mhm. fen mën naa koo waat lu sàcc mën naa ko waat mhm. waaye daa am lu ko yàq muy lan mooy day liggéey lu mu mënut day liggéey day liggéey lu mu mënut ah mooy day politique te mënta politique mënta politique waaw mm. Thierno menn moom ci Sénégal laa gis ci po euh, euh, campagne électorale ñu jox la temps de antenne ne la ah. baabal sénégalais ñu wateel la ah. nga taxaw di saaga ànd saamu jikko yi <laughs> <laughs> Sénégal képp yow waaw yow ànd saamu jikko yi société civile boo xam ne jote wuñu ak yow dara xëccoo wuñu ak yow pal defuñu dara nga di tiire ci seen kaw xam nga ceer na moom leen na ko yàq <laughs> mooy lu nit ñi ne ñemewoo ko ak sañoo ko day ñëw ne ñeme naa ko sañ naa ko mën naa ko weesu naa ko waaw <laughs> loolooy problème euh. bu nit ne ñemewu la beru mu ne damay beru bu ne maanaam ñeme na gars yi yalwaan ba mu des moom dong mu ne ñu ne ceer na ñemewut a yàq yalwaan ji mu ñëw tuur ko moom ñeme na lu ko te boo xoolee même politique am noonu lay politique fii ne gone gu am wërsëg la am am ay oto jàppoon ci politique am lool ci local yi bi local yi jàllee fii ne daa xuloo moom mu dem Habib Habib Kane moo taxoon Thierno gagné Malick Kayre ci élection locale ya boo xoolee Malick Kayre Thierno daa gagné soixante mille voix Thiès dong te amaatul soixante mille voix ci élection yi Habib Kane moomee nga xam ne moo taxoon politique am Thiès ratax biñ élection yi avant six mois élection locale yi ak législative yi xuloo nañ ba Habib Kane mhm. boo xoolee Idri dafa fettoon Malick Malick Kayre bii paa dafa ñëw gañewaat Malick Kayre mhm. parce que Habib Kane moo ñëwaat ci moom mhm. loolu Thierno daf koy def mooy lum loo ne Thierno sañu ko moom danaan la sañ naa ko loo ne ko ñeme woo kon mu ne ñeme naa ko te politique politique laajut loolu mhm. politique da ngay diglu nit ñi liñ bëgg dañ ne booy booy dund booy lekk lekkal li nga bëgg mais booy sol solal li nit ñi bëgg politique nag booy maanaam booy def defal li nit ñi bëgg mais bul def li nga bëgg yow. donc Thierno moom man wóor na ma ne. Mhm. du dem ci Macky Sall waaye man amuma yaakaar ci ne sax dina ñëw ci opposition bi. Mhm. li ci des nag mooy yeewu askan wi ñoom ñoo war a xam ne tamit dañuy politique. waaw kenn ku nekk ci ñoom war nañoo def délégation. ci yow seeti la. Mhm. bi ci des mooy Macky Sall mënta dig nit ñi lu ay poste waaw majorité assemblée nationale ku ko am am ngay poste ñoom ñett lañ bëri kenn ku nekk bu fekkee da ngay négocier ak mu am loo ko jox mu téye. waaw garaawut. Euh, kii yaa nga fa. vice président yaa nga fa. Mhm. yëpp a nga fa. après nga xool looy jox gars yi ñu téye. Mhm. nga nga jox leen. mais en tout cas moom luñ mën a def mooy. Mhm. damay wax ne daal Macky Sall nag wu rëy la woon wu naqaree xeexal. waaw di mbëkkee di wéqee di def lépp gars yi di xeex di xeex ba daaneel ko. <laughs> di xeex di xeex ba yeew ko fii ne ba mu dëgër këng. ku téye paaka bi. bañ bañ koo rendi bu gaa yi jógee yow la ñuy jël rendi la ci paaka bi. <laughs> loolu moom na ko ñoom ñëpp xam. waaw waaw macha allah. Cheikh waa ji ndaw si na ma. jeex waaw wax dëgg fa yàlla ndaw si wax na ma ko temps bi dañ koo ñiit <coughs> Cheikh Bara Cheikh Bara jox ñu mm-hmm. programme bi macha allah jàngat bi am na solo maay jox ñu programme bi waaw euh, programme bi tey mm-hmm. mooy bëggoon na maa ñëwaat sax joxaat leen ay kii leeral yu gën a kii ca wàllum mm-hmm. seere ma waaye nag ndax nit ñi dañ may woo di ko sonalaat di ko sonal ndax daanaka loolu moom mooy feebaru sénégalais seere ay ballottement yooyu moom mooy seen feebar mais dinañ ci ñëwaat beneen yoon kon bu temps gën maanaam vendredi suba. Hmm. ñu ngi HLM 2. Hmm. non ñu ngi Rufisque. Rufisque cité sëñ Mansour terminus 48. Hmm. ku fa ñëw boo ñëwee incha allahu taala bu dee wàllu sangat. ci ubbiku ak bayre ak wàllu wërsëg ak yooyu. da ngay ñëw foofa nga sangu. bu dee wàllu hémorroïde interne mooy seere ballottement biir buy def ngelaw yaram buy tàng yooyu. ak néew kattan ci wàllu sëy ak estomac. ak ay métit yu bopp ak lu mel ne ay ngelaw saytaane yooyu yëpp boo ñëwee. incha allah dañ koy faj foofa. bu dee samedi ak dimanche ñu ngi koy defee HLM 2 ginnaaw école Mandiaye Sall. Mhm. lundi mooy journée bi nga xam ne ci la ñuy faj wàllum rab. da ngay ñëw nga sangu rab bi ñu mocc ko dindi ko ci bés bi. Mhm. moo xam lu mu la mën a def nag bu dee da laa um bu dee daf lay feebar loo ngay tëdd bu dee dafay nekk sa yaram nekk ngelaw di dox feebar yu wër yi nga xam ne hôpital du ko gis. bu dee dalaa tee am jëkkër wala mu teelaa am doom wala mu lu mu la mën a def rek. Mhm. wala yooyu yëpp dañ koy dindi ci bis bi. incha allah euh, mardi ak mercredi ak jeudi ñi ngi école Madieye Sall ba tey. Hmm. vendredi daal la ñuy liggéeyee Rufisque. Hmm. lundi ci la ñuy liggéey rab yi bu dee rab yi da ngay téléphoné. Hmm. bala ngaa ñëw. Euh, bu dee garab yi nag. am na mbuur barab bu nekk foofa ci ku ñuy wax Abo Taal boo ngeen ko téléphoné moom lépp lu jëm ci wàllu faj mi ci asthme cité hémorroïde estomac yëpp dina ko dinañ leen ko fajal foofu ci mbuur. fi jàkkaarloog osan bi. bu dee Touba sama rakk ma nga fa. Jili Ndiaye ci Gede tali sëñ Bass Abdou Khadir. Mm-hmm. soo wootee ci numéro boobu boo demee moom itam dana la fajal mboolem feebar yooyu. d'accord incha allah. jërëjëf di fàttali tey ah, maa ngi jégalu bu baax nag. Mm. damaa taxut ma wér lool sax. waaw maa ngi jégalu maa ngi jégalu baat beeg. Mm-hmm. ak ñàkk teewlu gi. d'accord di fàttali ne euh, numéro téléphone bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis sa aajo faju ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ajaratu lenge yaa ngoog macha allah. jërëjëf El Hadj Sa Ndiogou Mbengue jërëjëf niki noonu Cheikh Bara yal na yàlla gën a wéral di ci nuyu kat yi ak euh, sëñ Sidi Mounda ak soxna May di ci nuyu nag Pa ndax jeudi nee naa dañ koy yàkkamti day daal di